yow lan moo tax lu manqué ci kër gi wala lu fi réer rek nga bëgg ma koo ji. xool ko li xam yi bari rek mu mel ne jalu suuf rek xool ko. waxuma oh, ak yow sa gën a faas bu bëri ak sa pes bi yàgg bi. ne gàcce du ko dal damaa xam ne sa poset waddee ca mbedd ba nga ñëw di ko jiiñ jom kanamam di di ma jox dafu indo. damaa tollu fële seen nga waddal sa pochette ma ne xaamaandil la ko. waaw eh. ah, léegi kon man soo feeñuloon su feeñuloon rek man maa sax sa cinquante mille maman yow lan nga ma yabee. kon yow mën nga wax ndànk. mën nga lan nga ma yabee yow sa xaalis bu réeré wala sa dara réer si kër gi rek mën nga koy jiñ man ma laa mos a jëlal dara yow da ngaa dara ba ñu lay jëlal. ba pare loolu jaaxaluma. nga naan ma ay cinquante mille yow foo jëlee cinquante mille yow xaaral rek man sa poset wadd ci mbedd mi nga di ko jiñ taate. man sax damaa xam kañ la daan yore poset nag. affaire yow tukki duuna boo kii nga yaakaar. waa eh eh eh, eh eh eh eh eh mais lu xel ci kër gi. kii ñëw fii di yuuxu nekk sànq ba léegi tëdd ci kaw suuf bi di rey nit ñi naan ay dañoo war damaa sàcc cinquante mille. waaw daa mujjee wàññeeku. wàññeeku wàññeeku. bu baax bu baax bu baax bu baax bu baax bu baax Euh, koy gisee. <laughs> kan moo wàññeeku booy. man de see lañ daje ma ne ko moom. eh, eh taxawal kii eh, muy cat muy saabu muy saabu ndimbal la daa mbokk mu feebar. dëkk ndoom bu feebar moom la ñuy kenal. dëkk ndoom maa ngi lay tali yow da ngay tali woo ma ko yow. ñaari dëkk ok nee na ma sax boo yéexee ma naa moom tey moom ma ci de sama gars yi daal ak sama moromi ku ci nekk yaa ngi préparé sa korite de man de sama téléphone sax soneegul ay njëkk yu bon boo ko amee tamit baaxul xanaa suukaru koor sax man bëgguma sax suukar waaye jasineer wala sëfa baax na ku ci nekk yaa ngi ko def sëfa bu baax daal awa tamit ak kajjaa seen jukko neexuma waaye yàlla baax na garde gi moom tey moom am dara tay mom waye sax da nga len di mbaran waye léegi mom doxatuñu ndax ay nande tele léegi ay nande tele de waaye na <laughs> ah, kañ xana benn waaye señ fallu rek lay xaar ni ba mu yegg ah yàlla lii ko mën sama càmmiñ baal ma ma gis la ñun de daa am suñu dëkkandoo bu baax boo xamante ne ndeysaan comme ay mag raq daa feebar feebar bu métti ba toll ci diggante dee ak dund te amuñu xaalis buñ ko fajee sànq ba tey maa ngi koy sàkkul ndimbal ma bëggoon soo amee dara xeebuñu dara nag nga dimbali ñu si ñu fajee ko jéem bu ma woowoo ne gaañu na de du ko yëg du ko gëm. déedéet ah sans parce que de dix mille rek moo si nekk. yaa nga jëm see jàppale. yal na la yàlla fay yi. amiin bëgg sa xol yal na ko yàlla defaral. amiin amiin amiin. kii saret de mooy dëkkandoo dara dal ko mu ngi nii. Ah, yi. ana

wërsëgu dëkkandoo la. waaw